taxawu Dakar nekk sax léegi taxawu Sénégal taxaw Dakar nag xalifa Sall moo ko sooxee moom ak ay maire yoo xam ne kenn ku ne ak fa nga jóge ci parti politique ngeen ñëw ñoom ñëpp ñu àndandoo xalifa Ababacar Sall dooleel ko moom nag soo war ni xalifa naam bëri na ay jigéen yu mu àndal waaye jàpp naa ne euh, soo war ni mooy ko ci gën a fës ndax moom la ñu dénk maire Dakar wutu ko ñuy ànd euh, boobu mooy premier buzz bi beneen buzz bi nag mooy euh, fi mu nii ku ne xam na ne Sénégal euh, le benn actualité moo pañe réew mi muy élection locale yu ñuy waajal le 23 juin janvier 2022 actuellement état-major parti politique yëpp ak ay sénégalais yoo xam ne amuñu sax parti ñu sos ay mouvement nekk ay indépendant ñu euh, samp kon seen dënd pour ñoom itam euh, ñu fal leen maire ci gox goxaan moom nag Moussa Wade ni jamono ji moom ak Barthélémy Dias ñoom ñaar ñëpp ñu nekk taxawu Dakar nekk tamit ci coalition opposition bi gën a mag muy yeewi askan wi ñoom ñaar ñëpp ñuy xëccoo pour euh, nekk candidat à la candidature foofu ca mairie de Dakar loolu nag euh, bari ay euh, jiixi jaaxa ndax moom mayewul dara Barthélémy Dias tamit mayewul dara ki sekk ki nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñaar ñëpp euh, di Khalifa Sall mel ni ku yëf yi dépassé daay toog mel ni ku leen mel ni ku leen ëffal ñoom ñaar <laughs> loolu lay dëkk leen ëffal ñoom ñaar léegi nag loolu nag Sénégal mooy entrée en matière bi ñu fa yéene waxtaan ak sunu yaay mu def ñu nag honneur wax dëgg yàlla te euh, ndawaluñu franchement honneur bi maman ñu gërëm la sant la ci ni nga euh, nanguwee sunu invitation tey defe naa ni euh, journaliste Sénégal gi yëpp bu ñu sañoon tey am la ndax tey yow yaay actualité ndax nga nekk actualité du rek xëccoo bi ak Barthélémy Dias mais surtout sa ñëw ci ay médias bariwul kon jàpp naa ne honneur nga ma defaral à travers moi le groupe Futurs Médias ma gërëm la ci sant la ci bu baax a baax fas yéene nag tey émission bi euh, li ma si li may ñaan yàlla mooy buñ ko oh, buñ ci génnee sénégalais yi rawatina Dakar yi ñu gën la miin ndax ñu bari miin nañu sa kanam waaye nañu sa kàddu wax yi bëri na si yow mosoo tontu mosoo leeral ma bëgg nag tey maman nga waxtaan ak sénégalais yi Dakar waaye ñi nga xam ne trois ans ba tey yow la ñuy jiital ci seen ci ci li li gën a am solo wax dëgg yàlla ci gox ba muy nga jiite ko ba bëgg nga waxtaan ak Dakar waaye ñi xam kan mooy Soham Wardini xam tamit lan nga def ci biir Dakar trois ans yi nga fi toog ba léegi ak lan nga leen yéene buñ la wóoluwaatee ba fal la mm-hmm. keroog 23 janvier 2022 Euh, may jégul nag ba tey ci maman bi nag man ñun ay waalo waalo la ñu day nañu wax lool waaye dafa am nu ñu yaree bu ñu ku ñu mag ñu wax la mag ku ñu euh, mat yaay ñun la maman donte na ci émission bi waruma wax maman waruma tàng waaye ñu jégal ma <laughs> ñun kenn jàng man jàngaluñu ma sàllalu moo tax mm-hmm. rus naa la sàllalu ñu baal ma rek sama sama naataango yi may dégg ñu baal ma ci su ma la nee maman émission bi rus naa la waaye soo am el war di nii kon ñu baal ma rek léeg-léeg su ma bërëxalee mama ñu baal ma sama yaay nga ma nangu ko mama ma bàyyi la nga nuyoo askan wi jërëjëf Aysatu Fall naa yaay ji sama doom ah, maa ngi lay nuyu ah, di rafetlu invitation bi di nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu waa Ndakaaru di nuyu sax Sénégal yëpp mm. ah Soham Wardini mën naa ne saalum saalum la bawol bawol la jolof jolof la ndax sama yaay waa Mbàkke la ay nijaayam a nga jolof <coughs> man ma juddoo saalum foofu laa juddoo foofu laa dafee école primaire euh, bi ma waree dem lycée lycée amul Latmingué ñu obligé mm. toxu Kaolack mm. ma daf foofu sama baccalauréat ñëw université Dakar euh, daf euh, fac de lettres am fi licence am fi certificat de maîtrise jotuma bind nag sama mémoire. Mm. après nag may jàngale fi ma njëkk a jàngale mooy lycée Blaise Diagne. Mm. bi ma jógee lycée Blaise Diagne aussi dama ut benn CM à côté ci sama wetu kër. parce que mm. moo ma gënoon jege. ma ma falaa nekk ba bi may def retraite anticipée. ndax xaaruma âge retraite bon ma nekkoon ci ay activités yu bari finalement ma def retraite anticipée. booleeg politique bi nag. ah politique bi nag man yéex naa dugg en politique parce que bi ma ciy dugg vraiment euh, amoon naa plus de quarante ans. Hmm. mais boobu ah, yàlla def na ne sama doom yi xawoon nañ mag tuuti ma xam ne peut-être dans vingt ans quinze ans vingt ans j'irai à la retraite ma ne naa commencé léegi. Hmm. Ah, dugg ci politique bi. Hmm. li taxoon ma dugg ci oti dama doon xool sama entourage. ma bëgg vraiment jàppale jeunes yi. Mm. jàppale jigéen ñi parce que nag dama nekk ci développement yàgg na. Mm. ma ne aw réseau pour l'humanitaire mais yaakaar naa ne bu ma duggee en politique danaa mën a dimbale nit ñi autour de mois euh, xam nga rek ni ñuy defee politique Sénégal mm, mm. nekk Saalum Saalum dégg Moustapha Niass en 99 mu def mm. déclaration am mu xaw a niroog <laughs> xaw a niroog sama vision ma ne kii mun naa ànd ak moom looloo ma ci dugal mais du leneen parce que man bi may dugg am politique am naa métier am naa salaire yàlla euh, dimbale woon na am naa kër am naa oto kon kenn mënul wax ne Soham Wardini dafa duggoon ci politique pour am loolu yëpp kon nag euh, noonu daal laa duggee ci langue politique bi Mm. ma nekk nag AFP bi ñu naan toujours AFP la bokk AFP mm. la bokk may fàttali rek ne taxawu Dakar mm. coalition de parti la ñuy wax ne man AFP la man AFP laa du ma ne du ma AFP parce que ñoom waa PS même bañ leen dàqee dañu naan ñun PF lañ PS lañu foo ñuy réunion yi présidente la ñuy wax secrétaire moo secrétaire général mon responsable donc ñoom structuration ba ñu amoon PS ba léegi fu ñu réunion taxawee ñu ne mooy continuer mhm. waaw pourquoi moi ñu bëgg ma naan AFP nga euh, elle est dans Benno mhm. je suis j'étais dans Benno eux tous étaient nous étions tous dans Benno mhm. et jusqu'à présent moment bi may wax yow ba tey jii Babacar Mbengue ma baal ma sax maa ngi koy lim mais Babacar Mbengue AFP la lu tax duñu ne Babacar Mbengue AFP ah, la maire de Hann ah, Cheikh Gueye ah. fu mu bokk LDMPT waaw lu tax duñ wax Cheikh Gueye mm. ñoom lu tax ñoom ñu duñu wax seen bopp naan waruma bokk taxaw taxawu seen coalition de parti lañ parti yi yëpp a ñëw booloo ñi meroon ñoo booloo def seen coalition parce que politique la daal mm-hmm. ñu booloo retrouver wu daan taxaw doon taxaw ñun ñëpp ay actionnaire lañ ci taxaw mhm. kenn mënu cee génnee kenn mhm. te responsable leader bi nag ñëpp la boole yemale mhm. xalifa boo gisee mu am lii mu am dafa yaatal mais mais maman bëgg naa ci xalifa boobu ñu ñu taxaw wax nga ne euh, AFP nga bokk expliqué nga sa ancrage ci AFP ak euh, li la boole ak Moustapha ba nga nekkee AFP fësoo fa ci xalifa Sall nga fësee lan mooy sa diggante ak xalifa Sall lu tax Khalifa Sall euh, mu jaral la nga dem euh, presque euh, dugg ci moom ànd ak moom ngeen formé taxawu Dakar te effectivement comme li nga ko waxee tam nga bokk ci actionnaire yi. Mhm. xam nga AFP duma ko nëbb bëgguma sax di wax yenn mais dama fa nekkoon bari fa ay problème man mhm. maa nekkoon responsable des femmes du département de mhm. bokk bureau politique. yore commune Mermoz Sacré-Cœur. bi problème yi baree baree baree baree ba ñu yegsi ci euh, référendum dama voté non au référendum. Mm-hmm. bi ma ko voté dañ ma sanctionné daal di ma suspendre. trois mois. te ñeneen ñi nekkoon AFP te voté non kenn kenn suspendre dañ leen avertir. mais pourquoi yow. voilà pourquoi man. alors suñ ma defee loolu yëpp poste bu ma war a am ñu dindi ko jox ko keneen. ca mm-hmm. député yow si si ko fàttali ko. maa ngi doon xëccoo ak sama départemental ñu éliminé ñun ñaar jox ko jeune ba. Mm. ma ñëw ville de Dakar bi may njëkk a ñëw ville de Dakar Benno Siggil Sénégal laa fa ñëwee. ma mm. ñëw fa nag yàlla boole ma yàlla tegal ma ci sama yoon nit ku baax nit ku am yërmande nit nit koo xam ne responsabiliser na ma boole na ma ci équipe bi di ma confier ay mission. Mm. soo amee jàmm jooju ville de Dakar da nga xalaat delluwaat fa nga jógee woon. ah voilà moo ma yaatal. wóolu ma dénk ma liggéey ma nekk di liggéey ak moom lu tax may delluwaat foo xam ne bu ma demee ay naqar rek laa fay am du ma fa dellu man ñoom waa AFP nañ li dem laaj leen kañ laa gëj AFP mais mais xam nga laaj bu am solo la kañ nga fa gëj actuellement mhm. depuis quand nga gëj a dem euh, seen réunion yooyu kañ nga gëj a Moussa waxante ak Moustapha Niass euh, kañ nga gëj daal nekk si ay yëfu AFP géej naa fa au moins depuis trois ou quatre ans dematuma fa. dematuma benn réunion. ñoo woowatuñu la réunion. non woowatuñ ma. Euh, régional bi moo doon oo quelque fois te bañ ma fa dàqee tere ma fa réunion laa fa gëj a teg sama tànk. bu mu daan insister naan ma réunion réunion dem naa benn yoon peut-être chez santé añ mais loolu ça au moins trois ou quatre ans. kuy waxal yàlla rek boo demee laajte dañ la ne gëj na fi. mais lan la. où est le problème Moustapha Niass man Moustapha Niass kilifa la Moustapha Niass damay wax ak moom téléphone récemment bi ñu amee benn kenn ku gaañu oo naa ko jaale ko pour pourquoi ñu bëgg man ma def ennemi ay nit yoo xam ne démb ak barki démb maa ngi doon ànd ak ñoom man du ma façon nit xam nga xam nga actuellement yow bala maa dugg nag ci xolu euh, coow li mhm. tey jii ñu bëri ñi nga xam ne nii euh, neexoo leen seen seen acteurs yi mhm. ñi ngi aj ñi li li ñu yëkkati mooy dangaa ngarale yaa ngi AFP yaa ngi benn yaa ngi taxaw Dakar <laughs> ba pare ñu ni euh, AFP bi nga nekk ku ne xam ne ne AFP ma nga benn bokk yaakaar mm. man fii laa invité Zator Mbaye ma ne ko yéen AFP pourquoi euh, euh, yéen a ngi ŋàññ soo am war dañu si démarche waaye dàqu leen ko moom itam démissionné wu léegi foofu nag maman quiproquo boobu dafa war a leer pourquoi ñii dàq ñu la xëy na loolu seen seen seen responsabilité la mais pourquoi yow démissionné woo yooyu itam. mais lu tax may démissionné. pourquoi may démissionné nañ ma dàq. ma fa. nee nañ je la la ligne parti nañ ma dàq. et pourquoi ces reproches reproches yooyu ñu may defal lu tax duñ ko defal ñeneen membre ya fa nekk. waaw man loolu laa mënul comprendre ñooñu dem démissionné wuñ te kenn dàq leen ñoom dàq nañ leen waa APS yi dafa mel ne dañ leen a dàq na xam dama commencé màgget nag. fàtt naa yu bëri mais dafa mel ne ñoom dañu leen a dàq sax seen parti bay waaye ñoom dañoo siisu ne duñ dem. ñoom nee kenn mënuñ dàq te kenn notifié leen dàq bi. Hmm. te ñoom ay PS pur lañ c'est des PS de valeur kenn mënu dàq foofu. Hmm. alors pourquoi kenn mënu dàq lu tax ñoom duñ démissionné. ñoom itam ah pourquoi sax yow sax yow. <laughs> ñoo ñëpp taxaw ne. nañ démissionné saa ngarale. voilà nañ démissionné ñoom buñ démissionné ma démissionné loolu rek nga leen di wax léegi. waaw waaw nag mama mama yaa ngi ma bëgg gën a neexaat tamit. waaw yii yi nga wax nii neex na ma. <laughs> Eh. waaw yii nii neex na ma xëy na yii bokk ñu kon kii. Eh. xam nga da xaw a sedd tam mama dëkk bi xamuñu ko sedd da nga xaw a sedd torop da nga sedd mama. man nitu jàmm la doo xuloo doo xeex. du ma xuloo duma xeex duma ma. fa mais da nga fayu quand même ku la door nga fayu. Euh, non ku ma door sax du ma fay dama lay bàyyi ak yàlla. <laughs> Euh, bii nag maman damaa bëgg nga nga mhm. euh, ñu ngi dégg mm, wax yi na. Mhm. version yi bari na. Mhm. Barthélemy Diaz moom itam ma mi ngi wax ci woo mais yow kenn déggu la liir nañ la quelques entrefilets ci presse bi. Mm-hmm. bëgg nga wax ma nga wax sénégalais yi qu'est-ce que ça passe à Taxawu Dakar par rapport ak sa candidature à la candidature de la mairie de ville. Mm-hmm. Euh, yéen wi ngeen bokk léegi. Mm-hmm. Euh, ci ville bi yow nga déposé sa candidature tout comme Barthélémy ñu xëy suba à la surprise générale ñu dégg ne. dangaa forclos hmm. parce que tout simplement nee nañu euh, ci version euh, ñoom yeeyu askan wi dama ci dégg waa jooju dafa naa jaxate damay bañ a juum euh, ñu validé nañu ba ñu ni yow premièrement da nga yéex a ñëw da nga après travaux yi la sa mandataire hmm. en l'occurrence Cheikh Dieye la maire de Dieuppeul Derklé ci la doog ñëw alors que moom il était tout au long du processus ñëw euh, ba ba ñu ba ñu tëjee affaire yi ci lay ci lay ci lay ñëw ba mu ñëwee euh, ci la indi benn sa acte de candidature nga bind ko à main levée. du mhm. ñëpp ñaaw. Mhm. Euh, yooyu yëpp nag version yi bari na. Mhm. te xam naa ne xëy na am na yoo xam ne doo ko bëgg a wax sur la place publique mais damaa bëggoon maman yaa ngi jàkkaarloo ak sénégalais yi ñu lay déglu nga jàkkaarloo ak Dakar waay. ñu lay déglu ñoom itam. ma bëggoon nga wax Sénégalais yi. Mhm. tout ce qui s'est passé. voilà contour affaire bi nu mu demee. Mhm. luñ la ci wax. Mhm. noo noo ko dundee nga wax vraiment nga transparente ak Dakar waa yu lay déglu. dama lay bàyyi rek nga waxtaan ak ñoom. waaw jërëjëf Aïssatou. xam nga euh, ñun li ñu waxoon taxawu Dakar. Hmm. mooy déposer candidature bi ay yeewi askan wi. coow li bari na parce que ba xalifa wootee pour ñu daje ñun ñëpp département Dakar daf ñu njëkk oo une première réunion ne dem leen waxtaan leen juboo leen juboo leen juboo leen mhm. ba mu oote waatee réunion foofu mu fees dell ak nit mhm. mu ne lii mënuma fee wax ak nit ñi annuler réunion bi ne léegi comme que nii la mel damay recevoir commune bu nekk benn par benn bu ma paree ci communes yi 19 communes yi ma convoqué ville candidat bi lii ñu waxtaan noonu la defee woon. Mm-hmm. processus bi doon dem muy recevoir di recevoir man musuma yëg ne samedi boobu réunion amoon na. musoo ko kenn musuma ko yëg fenn kenn waxuma ko. Mm-hmm. man daal avant may voyager dama jël sama dossier parce que dama fa mel ne yàlla daf ma waxoon ne sa dossier bàyyi ko fi. parce que ñii mën nañ laa def un mm-hmm. donc ba may dem voyage dama jël dossier bi bàyyi ko fi ne au cas où ñu laajte dossier ngeen déposel ma ko. ma dem ba ñëw ñu ne jéem nañ ko déposer mais dañu ne c'est pas le moment. ma ñëw toog samedi vers 17h passé bi 5h passé damay wax tour nag parce que man. Ah, dëgg laay wax. si maman il faut le Cheikh Gueye moo ma oo te c'est lui. moom mooy responsable département Dakar ci taxawu dakaar mm-hmm. Cheikh Gueye bu ma laajee kay dama ko koy jox. Cheikh Gueye oo ma ne ma. soo am gis naa fi juróom benn candidat te gisuma sa candidature parce que ñoom ñëpp xam nañ ne candidat la. Hmm. ma candidat sama candidature man dafa normal. man maay maire sortant. xanaa danaa présenter sama bilan. danaa won waa dakaar lan laa liggéey. Hmm. su leen neexee ñu votel ma su leen neexul ñu dàq ma ut keneen. Hmm. ma ma Cheikh Gueye oo ma wax ma loolu ne ma ma ne ko Cheikh bàyyi woon naa fi sama dossier mu ne ma gisuma sa dossier mais dafal ma ba acte de candidature ah mais levé nga yónnee ma ko. moom Cheikh Gueye moom Cheikh Gueye moom la responsable de taxawu Dakar. Hmm. parce que nag jaaxle na bi mu gisulee sama kii ñuy toog di wax waxu candidature te moom moom en tant que responsable taxawu Dakar moo war a jël suñu candidature yi. yóbbu ko foofu ah. ñooy ci jël hmm. gisul sama bos ma oo ma laaj ma. Ah. ma bind sama benn doom ne kaay yóbbul ma. Hmm. moom gis na bi may bind moo ko dugal ci enveloppe yóbbu ko ba ca salle de réunion fi ñëpp toog di réunion mu jox leen ko. Mm-hmm. il était 17 heures passées nag je reconnais. 19 mm-hmm. heures kenn oo ma ne ma man maay responsable commission des investitures madame le maire vraiment on est désolé mais da ngaa forclos parce que ñu ngi soog a jot sa dossier te ñun suñu réunion bi pare nañ ko depuis 16 heures 45 ba yónnee nañ sax PV bi ma ne ko en tout cas man yóbbuma loolu. man j'étais dans un processus boo xam ne maa ngi toog xaar ñu ooma pour entendre ñu man ak beneen candidat Dakar bi donc man loolu laa doon xaar et puis yëguma réunion oo nañ ma daal ne ma yónnee yónnee naa mu ne ma oui mais madame le maire y avait une circulaire ne ko gisuma circulaire yëguma circulaire hmm. muy bëgg a wax ma ne ko baax na merci beaucoup hmm. monsieur hmm. le président de la commission ma raccroché sama téléphone au oh, Cheikh Gueye mu ne ma danañ jël sa acte de candidature ma oo keneen wax ko mu ne ma danañ ko jël man foofu laa yem xam nga man institut man lu lu ma métti dañ may def dans des yoo xam ne man combat man mm. xëccoowuma xuloowuma xeexuma mais ndakaaru yëpp Sénégal yëpp foo wax ñu ne soo am ngay xëccoo xëccoog Barthélemy mm. man de Barthélemy sama doom la ni muy mm. waxee ne man yaayam laa man noonu laay waxee ne doo sama doom la alors loolu yëpp lu ko fi jar lan moo ko fi jar man nag dama ne parce que jigéen laa moo tax ñu may def lii ñu may def man loolu moo am métti ci histoire bi c'est parce que parce que jigéen laa. parce que est-ce que loolu ñeme nañ ko def góor yi. maman mm-hmm. noo sentiree ne euh, jigéen bi nga nekk moo tax ñoom ñu osé la def lii mu mel ne ñoom ñoo def seen complot entre ñoom entre góor bedd la yow te defe naa. non bu nekk candidate à la mm-hmm. parce que ñoom dañ ma jàppee kii du wax dara kii du ah, kaas kii du xëccoo kii du lii lii mais nag bu fekkee ne nit ñi kuy kaas kuy xuloo. kuy saaga la ñu bëgg loolu mënuma ci dara man du sama nature. Mm. man xaw ma loolu mënuma ko bu ma ko bu doon jéem a def sax du soo kooku du soo am. Mm. man daal nee nañ ma nii la yoon bi nii la yoon boobu laay topp ba gis leneen. Mm. mais duma fi nekk fu nekk nag may wër di wax di xëccoo di kii et vraiment Aïssatou <coughs> ah, sa yaay la sama ay doom ngeen waaye. war nañu wax ci li xew ci réseaux sociaux yi mm-hmm. ñëpp ŋaññe nañ ko nag mm-hmm. suñu kilifa diine yi sax ŋaññe nañ ko mm-hmm. waaye loolu daal wax dëgg yàlla war nañ ci jóg war nañ ci taxaw gis nga compétition c'est normal ku nekk mun nga nekk candidat ku nekk yow bu la neexoon tey nga yéen candidat la ville de Dakar am nga droit bi am nga sañ-sañ lu tax ñu naan kii du candidat ñëpp mun nañu nekk candidat mën nañ ko teg ci yoon ñu ànd ci ak yar ak teggin ak teey li yàlla bind ci sa bi kenn mënu ko cee dindi ku ci nekk sa wërsëg da nga ko jël. xam nga euh, maman wax nga léegi comment c'est passé euh, cette affaire de folklore. Mhm. Euh, ni nga waxee nii xam nga Cheikh Gueye mooy quand même le ah, ma la départemental. le léegi ce qui est un peu bizarre mooy comment se fait-il que ngeen bokk. benn langue politique moom mu déposé à temps moom Cheikh Gueye nga xam ne moo waroon jël yëpp déposé ko mu déposé benn date sax wax nga ne dafa ne gisul sa bos. mais moom jotul sax bu Barthélemy fa la ko fekk. Ah. Barthélemy ci li mu wax fa la fekk candidature Barthélemy. Mm-hmm. man nag man pour man man ak ñeneen Barthélemy keneen ak keneen ku bokk taxawu boo nekkee candidat dossier yi Cheikh Gueye lañ ko war a jox. ñoom ñu xool ki ñuy tànn ñu jël ko yóbbu ko jox ko ci eh, Yewwi que man noonu laa comprendre woon mm. moo tax man tam awma ci woon benn jaaxle mm. parce que dama ne bu ñu bokkee benn laa la waaw dama leen wóolu dama ne non non pour man eh, yoon bi daal noonu la ku nekk da ngay def sa dossier candidature jox ko le responsable départemental di taxawu mm. moom moo koy yóbbu foofu ci réunion bi léegi maman beneen bi mooy est-ce que yéen ci bi taxawu est-ce que am ngeen benn defar ngeen benn réunion en amont comme en aval. Hmm. pour euh, devant xalifa yow nga yëkkati sa loxo ne man candidat damay damay damay remplir parce que wax dëgg yàlla dina jaaxal ak Dakar waaye yow maire sortante nga ni euh, nekkoo candidat est-ce que toog ngeen devant Khalifa yow nga pose acte de candidature ak Barthélemy aussi. mais loolu laa la expliqué Aïssatou. Hmm. Khalifa mi ngi doon recevoir 19 communes jotaguñu woon recevoir man ak. pareegu leen woon accès woon si. jotaguñu woon recevoir mi ngi ñu recevoir barki démb. ci guddi la ñu recevoir man ak Barthélémy parce que parewuloon commune yi moom dafa ne woon bu paree commune yi ci la ñuy oo ñun ñaar ñu waxtaan te wax dëgg yàlla nag à sa décharge mm. noonu la def ak ñëpp mm. ku ne bëgg naa rek mm. oo na la boole leen neneen nañ waxtaan bu ñu dégloo ba pare day génn man dafa ne day génn ñu ne ko bul génn parce que man désisté wu ma kii désisté mu ne danaa leen bàyyi de toute façon il faut ngeen waxtaan. Mm-hmm. ñu toog waxtaan. bi mu dellu see aussi laaj ñu. Ah, mm-hmm. ku nekk ne ci maintien ta candidature. Mm-hmm. mu ne ñu may leen ba suba. ñun ñaar ñëpp ñu ne ko soxlawul ba suba. parce que du ñu retiré. foofu lañ toll ak moom léegi nag moom moo war a tranché moom la ñuy déglu te bañ fay jógee def ñu ne danaa leen oo. man maay mooy li nga wax ni mooy vendredi. waa ah léegi euh, maman. Euh, Barthélémy gis nañu ci réseaux sociaux yi ak fu ne parce que démb ci ajuma ji euh, dafa am rima ba doon génn ñu ni Barthélémy dafay désister hmm. moom mu génnaat weddi boppam weddi ne euh, defu ko defu ko hmm. donc moom maintenir na candidature tout comme yow wax nga ne Khalifa woote na médiation hmm. mais mënu fexe ba concilier les deux positions ñu gis tam ci journaux samedi ñu ni même si ajjuma bi jusqu'à quatre heures du matin. Mm-hmm. yow ak Barthélémy yéen a woon ci Malick Gakou. déedéet man nekkuma foofu. ay réew dama mais kon kon quest man nekkuma non parce que moom déglu nañu ba pare léegi kay moom ak comité de médiation bi lay waxtaanal. ah mais Khalifa mais yow kenn ah man de dew ma xaw ma nag keneen mais man moom. Mm-hmm. ba mu ñu recevoir man ak Barthélémy gisaatuma ko ba léegi déggaatuma ko itam. mais yow Barthélémy ba ngeen toogee maman ci comité bi. Mm. wax nga léegi ak mais ne Barthélemy sa doom la. waaw Barthélemy fu mu taxaw ne yaayam la. waaw euh, ma ma pour la petite histoire ma rappelé ñu ko fàtte. Hmm. que yow en 2014. Hmm. mën nañu wax ne c' est grâce à toi un peu que Barthélemy nekk maire euh, bu Sicap mais rempli. Hmm. parce que li xew léegi xewul woon. léegi je rappelle toujours que maire yi euh, dañ leen di fal suffrage direct maanaam pour mu gën a leer. Euh, yow Soham Wardini bu ñu defee sa foto ci bopp quoi ci liste ne yow yaa jiite liste ba le Sénégal yëpp xam ne yow mii bu ñu bu ñu bu liste ba gagné yaay doon maire. waaw yow nag ci en 2014. Mm-hmm. sa photo moo ci nekkoon. Mm-hmm. gars yi voté ñu dem ba ci biir ba ñem ba ba ci biir nga nga jox yëf ya bàttali. nga nga def ko en 2014. ma mere woon la ci lool. Hmm. jigéen nga dama jàpp ne góor ñi la preuve est là. Hmm. duñ ñu may dara. Hmm. Euh, euh, ñun dañuy comme yow tout le <laughs> c'est un peu mais ñun jigéen ñi ñun daal góor ñi dañooy jàpp bu ñu soxla ñu ñëw on chauffe la la la place. ou bien on passe les plats. après nga daal donc yow def nga loolu 2014. ba pare 2014. ba bàtt di yéeg aujourd'hui pourquoi le même scénario defaatoo ko pour que ba bàyyi baatali bi nee nga yow yaayam nee nga yow euh, yow yaayam nga moom doomam la ba ngeen toogee devant Khalifa Sall. Mm. qu'est-ce qui s'est ba ku nekk si yéen ñaar yéen ñaar mëneen teew leen dara ba mun na fexe ba déggoo. waaw dama lay fàttali yow 2014 nga wax. Mm. gis nga 2009. Mm. au premier tour man maa ëppale voix Barthélémy. ah bon yëguma ko moom. maa ko ëppale voix c'est au deuxième tour avec toutes les tractations politiques yooyu dugg génn. Mm. sama càmmiñ sax ci la bokkoon ci ñi ma daaneel ma perte. sama càmmiñ. xanaa Khalifa. 2009. <laughs> Ah, waaw 2014 ñëw. ñaari tête de liste yëpp ay jigéen la woon man la woon ak Racky Wane. donc ñun ñaar ñoo campagne campagne bi yëpp moom mu nekkoon ci biir liste yi. te daf ko doon wax sax bi ñuy campagne da wax na population xam naa ne defuma fi dara sama premier mandat mais bi yoon je vous promets buñ ma falaatee danaa def lii danaa lii mais nous avons battu campagne ñun ñoo battre campagne boobu. Mm-hmm. gagné gagné. mais mm-hmm. boobu man nekk moon candidat. li mm-hmm. nit ñiy wax yëpp kii ni nekk moon candidat parce que man boobu maa ngi nekk ville li ma gën a loon mooy ma toog ville ci wetu xalifa. yàlla may ma loolu ma dellu ville. bàyyee ko 2014 ma dara ak moom. ngëmu ko woon sax parce que dafa demoon ne dama yëkkati sama loxo ci biir saal bi. Mm-hmm. ma bàyyi ko fii ma nekk fii tey yàlla teg ma fi ma représenté jigéenu Sénégal yëpp c'est la première fois bi Sénégal indépendant ba tey jii. Mm-hmm. jigéen gi fi soog a nekk maire de la capitale du Sénégal. Mm-hmm. waaw loolu. ubbiwuma yoon pour jigéenu Sénégal yëpp. dëgg la sama ay doom sama ay rakk yoo xam ne man war naa nekk exemple ci ma pour war leen ne hmm. téye naa mairie bi kon yéen itam war ngeen mun ëllëg jël meeri bi mais bu fekkee ne man dama ñëw def fi ñetti at ñu daal di ñëw rek daal di ma falax puus ma ne jigéen bi na fi jógee ñu dem indi beneen góor teg fi kon kon man man man man xeexaluma jigéen ñi bon déedéet ah te man nag wax dëgg yàlla keroog li ma caucus des femmes leaders defal yeneen organisation féminine defal ma fa ne yow yaay suñu candidat mm. ah wax dëgg yàlla bëgguma rusloo jigéen ñooñu mm. bu ma sañoon mm. ah, bu ma sañoon daal nekk l'exemple boo xam ne jigéenu Sénégal yépp fii lañuy jaaree ñoom ñëpp oser di dem ci instance division yi ose di affronter góor yi mm-hmm. pour euh, jël poste yooyu parce que nag jigéen ñi ñooy fal góor ñi jigéen ñi ñoo ëpp Sénégal bu voté jotee boo demee ci centre de vote yi da ngay rang yëpp ay jigéen ngay gis ñu rang mm. pourquoi jigéen ñooñu ñoom duñu duñu dem jël poste yooyu mm. dañ koy bàyyi dañuy nekk daal di leen di tàccul ñuy sol ci ay kaar ñuy sol ay oto ay oto ba mu fees mm. voté leen bu ñu leen voté ñoom ñu jël ñun ñu dellu ca kër ga toog non non moi je pense que lii fii fii wax dëgg yàlla war nañu xeex jigéen ñëpp jóg taxaw du pour soi-même pour la femme sénégalaise la. Mm-hmm. parce que lii bu ñu ko seetaanee ëllëg ak si bu kenn waxati dara xeex nañ ba am parité. Mm-hmm. am nañ parité ci liste électorale yi mais war nañu aussi poste de direction yi institution yi ñu gis fa ay jigéen ci seen bopp. Mm-hmm. Euh, mais maman euh, beneen laaj bi mooy. Mm. Euh, aujourd'hui bu Khalifa Sall ni mu nekkee nii nga xam ne. Euh, seen leader boobu moom yi yi ay yëfam la dafa laate nga euh, léeg-léeg mu dugg baatu fa kaal. bàyyi jàmbur dégg nga <laughs> yéen leader bu day waar boo xam ne. bu bu bu bu bu bu jaxasoo day ëffalaate ba pare dem fay làqatu euh, ba leen ngeen mattandi tojante bopp. xam nga xam nga yow ñu ëpp ngaa bàyyi ci saal yaa bàttali mi. xam nga batterie bi mos euh, euh, euh, c'est ba bu bu bu tëggoon ngàtt la mbaj nag. non du def loolu baat dafa garaaw. non non xam nga xalifa waraloon ah. nga seddee ma baat mi yàq baat yamu leen mi annoncé ne les couleurs. nee na carrément moom presque sax mi ngi xaw a euh, euh, bedd waale taxaw Dakar nee na carrément moom il persiste il signe il confirme qu'il pleuve qu'il vant qu'il neige que moom il sera le candidat il est en tout cas le candidat de Yewwi Askan Wi mm. ci mairie Dakar mm. yow maman euh, wax wax nga ko léegi devant Khalifa Sall ne désisté wu léegi nag bu ñu demee ci biir ñoom góor ñi mm. ñu def comme d'habitude ñu def benn say <laughs> non non parce que <laughs> góor ñi duñu gëstu ñun tànk soxla ñun. Hmm. mais devant le truc le l'ennemi comment def benn say def benn dank ñoom pousse na parce que xam nga li complot la yu nuroo complot pousse maire bi ñu pousse la ne le euh, euh, xaar ba xaajal guddi ñu génn seen liste ne Barthélemy lañ ko ñu confirmé Barthélemy maman sama waat di ni bu boobaa lan mooy doon sa taxawaay ci mim réew. xam nga da ne góor ñi dañoo def benn say. waaw pour pousse ma ci biti. waaw jigéen ñi def nañ benn say pour porter sama candidature. man loolu rek sedd na sama xol. mooy mooy mooy mooy sama bàjjan Fatou ak ñeneen ak ñeneen. ak ñeneen ak ñeneen ñëpp taxaw nañ. Mm-hmm. ne sama candidature lañuy ñuy loolu nag bu seddul sama xol man xaw ma kon lan mooy sedd sama xol te combat bi jeexagul ma ne. Mm-hmm. man candidat à la candidature bu ville de Dakar laa. duma ko dindi tey duma ko dindi suba. soreetul nag fii ak suba danga xam kan mooy candidat bi. te te daal maman li ma bëgg mu nga bantuwaat ko pour muy clair. Mm. pour nopp yu yu baaxul yi. Mm. mooy bu la ñi góor ñi bu ñu la poussé tamit yow da nga la jënd sa bopp ba taxaw. Mm. man xalifa laay waxal. man wóolu nga xalifa de. ma wóolu naa ko dama koy wóolu nag ba ca. cappaandoo cappaandoo ba ba ca ba ca tomb ba. toujours ma wax ko nit ñi di ma reetaan. maak Khalifa c' est une longue histoire longue ou pas longue. Hmm. mais c' une belle histoire de compagnonnage. man ay wax ak ay xëccoo du tax ma yàq diggante boobu jara dara jaraluma ko ci àddina. Hmm. te xam naa ne nag ah Khalifa de bëgg na ma bëgg na Barthélemy waaye yaakaar naa ne boppam la gën a bëgg. Ah, loolu am voilà loolu te nag boppam nag. Khalifa defe naa ni. Hmm. wax dëgg yàlla chance bi du ko rate ndaxte. dëgg dëgg. jël la yow mii teg la ci mairie Dakar gee eh, yow dëgg yàlla yaa ngi nii noonu chaque jour ma loolu laa mm. <laughs> mën nga mas laa am nga ay ju neex mm. waaw donc laaj bi laaj bi mooy maman mm. eh, jigéen ñii taxaw xam nga eh, sam bàjjan Fatou Sow Sarr ma koy nuyu au passage kontaan ci li def ñoom jigéen ñi muy caucus des femmes leaders mm-hmm. ñooñu gis naa sax ñu bind ci Twitter ne ñoom dinañ fexe ba gisante Khalifa Sall pour xamal ko tamit ne moom Khalifa def na lu rëy d'abord ndax lu rëy la mooy ba mu nekkee prison ñu refe ko kaw ni ñu ko refookee ñëpp ñaawlu ko na naxawlu ko euh, yow mii moom bokk na ci ñi la dooleel wax dëgg yàlla ba euh, ñoom ñëpp ànd fal la mu def lu rafet loo xam ne moo tax ba tey jii turu jigéen gën na ko yokk raaya ci même réew moom Xalifa sa Ablaye Wade dafay parité moom euh, Ablaye Wade ba def def moo def parité Ablaye Wade moo te fexe tamit ma jigéen pour la première fois dans l'histoire du Sénégal nekk premier ministre mm-hmm. Macky Sall ñëw euh, feddali loola euh, ba tey jii sa Macky Sall gis nga def na jigéen fu doy ne ministère des affaires étrangères mm-hmm. moom Khalifa def na lu rëy ndax facilité na tamit sa élection wax dëgg yàlla. Mhm. ci mairie Dakar. Mhm. kon lu rëy loolu mu def bu arriéraatee déglu affaire maal ak affaire masculin wak waaye yéen affaire naan balaa ngeen wax ne arrière na xaar leen ba mu wax. dafa wóorul lii maman. non dafa wóorul a ay mun naa arrière de. Aïssatou baat daa garaaw de. li ma yàlla defal. Ah. man gor laa. Hmm. première femme maire Dakar. waaw. kenn dootu ko am ku dul Soham Wardini est-ce que mun na amati. loolu doo amati. bii waaw loolu rek man war na maa doy mais nag je porte le combat des femmes loolu de moo tax ma ne du ma retirer suma candidature. boo ko retiré maman femme yi. du ma ko retiré maman boo ko man maa jiite femme yi femme yi ñoo àndandoo. Mm. ñoo fekk si la ba ba ba si kàpp mer moos dégg nga eh, eh, di gis nga <laughs> bool lañu jël. di tëgg suñuy boor di tëgg yi tapale suñu boor. non du ma ko dama rek du ma je porte le combat des femmes. waaw ñoom ñii bu ñu benn say ñu tam ñu def benn say. Hm. léegi ba ca des maman mooy bëgg naa tamit maman nga wax Sénégalais yi parce que bëgg nañ la lool waaye euh, duñ jàpp tamit koo xam du liggéey dañoo nga tëgg. Hm. maman ba nga dégg ba nga toogee trois ans nga toog ci maire Dakar bii. Hm, Khalifa Sall moom moo fi noo lee aale ko. ci ñu defee loolu tax euh, ñu ñu ñu mbëma ko lee ay pavage ak affaire yooyu. yow maman lan nga mën a def lan lan nga def sénégalais lan nga def ci Dakar loolu ba nga toogee trois ans ba tey loo xam ne nii wax dëgg yàlla Dakar waaye. mën nañ ko duut baaraam teg ci seen bët bi xam ne soo am mi euh, parce que trois ans da ngaa mosoon ñu ne nag bii bu ñu la joxee mandat plein plein mandat maman. Euh, ñu mun ñu sukkandiku ci la nga def ku jox la plein mandat. loo fi def lu rëy loo xam ne. waaw ñu war a fal. xam nga bañ ma falee dama ne damay continuer programme yi Xalifa tegoon yëpp en place. Mm. ci loolu laa nekkoon. Mm. tudd nga fi lee à l'école. lee à l'école boo gisee ñu arrêté ko bañ koy def école primaire yi lañ ko daan def. Mm. yoreetuñu école primaire looloo tax ñu arrêté ko. waaye taxul ñu ne dañ koy bàyyi ñu ngi seet ban formule la ñu mën a def pour reprendre programme boobu. pavage bi. usine bi dafa tëjoon y avait problème waaye fi mu nekk usine bi jënd nañ ko ba bu soobee yàlla dootul yàgg dana redémarrer waat li ma fi def nag ci programme xam nga man bañ ma falee man jigéen laa yaay laa soxna laa bañ ma falee dama ne Dakar ville propre mooy sama premier programme boo xam ne moom laay def ndax jigéen nag moo yore cet ba may wax dakaar ville propre et boobu kenn xalaatul ne Covid dana am après ci la Covid bi ñëw te man ba ma waxee Dakar ville propre tam président bañ ko élire dafa ñëw taxaw ne moom dakaar ville propre programme boobu daf koy def Dakar ville propre boobu léegi ñu ngi ciy liggéey. Hmm. aménagement espace yi def de la verdure plante ay garab yooyu yëpp ville de Dakar mi ngi ciy liggéey. Hmm. am na sax ay rond point ma defoon ma tooñ tuuti sama doom Karim Fofana bi mu ko gisee mu rafet rek mu ñëw buddi ko commencé waat defaraat continuer ah, defar waaye hmm. puisque inspiré naa nit ñi alhamdulilah dama ciy sant yàlla. beneen programme bu am solo bi ma def mooy autonomisation des femmes xam nga ñun loolu ville de Dakar def ci liggéey depuis longtemps amoon nañ benn programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee PASFEF mu nekkoon au niveau de la yi nga xam ne dañu doon lebal groupement de femmes yi jël leen dañ leen daan lebal xaalis mais après dama ne lebal bi noonu bàyyi leen ñu dem amuñu formation amuñu dara ma ne noonu nañu changer de méthode ñu dem ci FODEM muy banque municipale bu bu Dakar bi ñu def fa benn programme boo xam ne balaa ñu laa lebal xaalis dañ lay former encadrer la jox la sa diplôme booy génn ci formation bi ñu accompagner la ak un petit financement financement bi du rëy torop mais ça peut deux 2 millions 3 millions au mois de mai génne nañ 3500 femmes yoo xam ne ñoom ñëpp jox nañ leen ay financement à hauteur de 140 ou 160 millions je me rappelle plus exactement à côté de loolu am na itam lu ñu naan CPM e CPM e benn incubateur la nga xam ne euh, ñu ngi ko def ak ville de Marseille def ko ak lekkool des entrepreneurs du Québec euh, ak ville de Dakar foofu xale yi góor ak jigéen la ñuy jël dugal leen foofu pour ñu nekk ay entrepreneur formation bi ci couveuse bi la incubateur la foofu lañ leen di dugal former leen à sorti ñoom itam ñu accompagner leen avec un financement ñaari promotion génn na ñetteel bi moom la ñu commencé ni di génne bu ñu demee ci école yi école yi am nañ programme de réhabilitation ñu ngi defaraat école yi. marché nag li ma bëgg nit ñi aussi comprendre marché da ngay def sa marché ba kenn gañe ko keneen ñëw dafa recours ñu annu annuler recommencer waat. looloo mm-hmm. taxoon defar école yi yéex waaye fi mu nekk yépp pare na ba commencé nañ sax defar yenn école yi. Mm-hmm. toujours ci éducation prise en charge scolaire yi. dem nañ ba un milliard cinq ñun bi ñuy ñëw en 2009. 900 mm-hmm. millions la woon budget bi. pour prise en charge yi. au Sénégal ak étranger fi mu nekk ren dem nañ ba un milliard cinq cent te deux mille vingt deux bi danañ dem ba deux milliards dimbaleeku xale yi ndax xam nañ ne jàng bi fi mu nekk problème la mm. école de formation yi la ñu gën a kii parce que dañu ne <coughs> xale yi dañuy dem université jàng ba pare du ñu am liggéey mm. mais boo leen yóbboo ci école de formation yi ku ci génn am sa mm. métier da nga mën a dem liggéey tout de suite loolu ci éducation ñu ngi ciy def loolu ak insertion bi parce que récemment def nañ benn programme boo xam ne permis de conduire ñi nga xam ne décroché nañ jàngatuñu au moins ñu am permis dana leen mën a dimbale peut-être ñu am liggéey. Hmm. loolu yëpp ci éducation ak formation lañ koy def. Hmm. prise en charge médicale yi li ñu ciy joxe ci hôpitaux yi muy principal muy CTO muy ledante ay prise en charge trois cent cinquante mille wala cinq cent mille bu njëkk daan nañu gën a dimbale surtout ñi daan am ay. Euh, chimio ay maladie yooyu nga xam ne ça mm. coûte très cher daan nañ leen dimbali mais loolu mënatuñ ko def parce que ci caisse d'avance bi lañ ko doon defee te caisse d'avance amatul xam naa danga ma laaj ci loolu après donc loolu yëpp ñu ko def réhabilitation la voirie yi fi mu nekk léegi ñu démarré programme de voirie bi mm. ville de Dakar defoon nañ ba premier programme ba nga xam ne en prêt BOAD lañ amoon bu 9 milliards programme boobu jeex na ba fi fan voirie bi Dakar éclairage public làmp boo gis muy tàkk Dakar ah ville de Dakar moo ko def. Mm. am na programme état bi nag mais ville de Dakar mooy def tout ce qui est LED. Mm. boo demee place de l'Indépendance gis nga poto ya fa nekk léegi. daf mm. nañ ko changé nañ loolu yëpp. quartier yi yëpp ñun ñooy éclairer. commune yi commune yi sama collègue maire yi wax lampe yi lampe lampe yi yëpp ville de Dakar moo ko def. c' marché de la ville de Dakar. dañuy waxtaan ak maire commune bi mu wax ñu fan la bëgg ñu defal ko lampe ñu dem. defaral ko ay làmp mm. donc loolu yëpp programme mu ville de Dakar la hôtel de ville bi gis nga ko mm. rénové nañ ko mm. macha allah rafet na torop tabax nañ fa beneen bâtiment ci gannaaw boo xam ne ay bureau yu bees aussi la ñuy def jardin ba moom macha allah voilà ñépp ku ñëw gis ko looloo taxoon ma doon xeex nag pour Sandaga Sandaga dama ne ville de Dakar dafa am la vieille ville boo xam ne dañ ko war a conserver ndax tourist yi bu ñuy ñëw dañoo bëgg a gis leneen lu dul ay building la ah building moom ay building yu gudd yooyu comme comme nouvelle ville bi ma nga jam ñaaju ku mm. bëgg a gis ay tour nga dem jam ñaaju gis ko mm. waaye li amoon Dakar histoire bàyyi ko fi ñun dañu war a am une identité waaw loolu tamit Aliou Ndoye mais xëccoo na ko ak yow. xëccoo na ko ak man waaye nag bàyyiwuma ko de. Ah, de na tekk rek de waaye yëf yëf ya dama nga ca yoon. ndax ville de Dakar nag moo moom marché Sandaga. titre foncier bi ci turu ville de dakaar la nekk. Mm. te vraiment yu bari xew na ci bëgguma di sule ay wax ak ay wax yu sew ak ay xëccoo. Mm. waaye fu nekk dem nañ fa maag Aliou Ndoye nag. Mm. pour ñu ñu fexe ñu d'accord ci daf. marché bi ensemble waaw voilà ah, mu def li mu def. nit ñi ne ma waaw da nga waroon yóbbu ay Grand Bras da nga yóbbu volontaire yi ngeen xeex nga ma ne man du ma xeex. du ma xeex. lii daal maa ko moom. waroon ma wax naa fu nekk mais ni ni mu jaare la ni ñu hmm. defee ba ba alindo yi dem yóbbu ay kayit parce que on a arrêté woon nañ travaux yi. Hmm. woon nañ Descos ba Descos arrêté travaux yi mais Descos bi mu ñu convoqué ñu dem ñun ñaar mu ne. le maire de de de de du plateau. Ah. dafa indi ay kayit yoo xam ne ñoom mënatuñu continuer arrêté travaux yi. kon dañ koy bàyyi mu def travaux yi mu profité ci gaawantu toj fekk ñun jël nañ dossier ba convoqué conseil municipal bi ba wax ne dañuy yóbbu dossier bi ci yoon. Ah. alors bi mu xamee ne dañ koy yóbbu ci yoon nag ci la gaawantu daal di ko toj. man nag man bëgguma woon ñu toj ko parce que même avocat bi ñu jëloon dama ko ne fexeel ba buñ ko ah, toj. toj bi dafa ëpp. ko toj hmm. mais malheureusement. xaw foofu laay ñëwee ci caisse d'avance bi. Mhm. Alioune ku ne ku ne xam ne ni projet bi yàgg na fay jóg. Mhm. Euh, euh, Karim Fafana. Mhm. moo ko porté woon. te boobu dégguñu woon Alioune Ndoye jóg. mais loolu mooy li ma jigéen bi rek ñu xaw la ñeme te comme maman tam doo xeex kat xam nga tamit maman après moom il faut ñu dugal benn laboratoire vraiment roofu la affaire xeex yooyu. parce que moo tax tamit vraiment ñii ñëpp segg yi bu ñu ñëwee song la. dégg kii xam Alioune Ndoye mii ñeme woon song euh, Fafana. ba nga ñëwee mu song la mais est-ce que euh, derrière Alioune Ndoye y la main de Macky Sall aussi. ah waa Alioune Ndoye nag xam nga moo ànd ak ñoom. moo ànd ak ñoom te ah, ministre man man ci opposition bi laa nekk Alioune Ndoye est côté. te vraiment xam nga nag nit ku nekk booy jàppale aussi da ngay jàppale ki la jàppale. xëy na looloo tax ñu ñu dooleel ko ba mu def loolu. Hmm. mais nag vraiment waxtaanoon naa ci ak ñëpp autorité parce que nag man tam ci état laa bokk. mairie Dakar institution la hmm. démembrement de l'état la hmm. wax naa ci lu ma mën wax naa ci ak préfet wax naa ci ak gouverneur wax naa ci ak président de la république wax naa ci ak ministre bi def nañ plusieurs réunions am na réunion boo xam ne dañ ko ne Alioune Ndoye yow ak ville de Dakar ak état mun nañu def ensemble marché Sandaga hmm. mais man li ma métti ci histoire boobu lañ ko wax yépp man ci sama bopp jóg naa fekk ko ba jam ñaajo ànd ak sama benn conseiller ñu dem ba foofu waxtaan ak moom mu promettre ñu lu nekk danaa def lii danaa def ay action fii danañ dem boobu dañu bëgg équipement marchand yi nga xam ne hmm. pare na depuis presque cinq à six ans dañu bëgg ñu dindi ñuy toog ci tali bi yëpp dugal leen ci yooyu te moom il était partant d'accord na pour ñëw dugal ko ci budget am ñëw ànd ak ñun ñu defar ko mais problème bi c'était Sandaga sàndaga moom la bëggoon coûte que coûte rek ñu nangu ko ci man jox ko ko hmm. mi ngeeg moom fi mu nekk waaye man tam maa ngi ci yoon te du ma bàyyi. bul bàyyi de bul bàyyi léegi maman ñu euh, ñu waa émission baa waaj a jeex ma ma ñëw si sa diggante ak président Macky Sall. Mm-hmm. sànq nee nga ne euh, dëgg la maire Dakar euh, ay ay compétence transférée ni mu poñee réew mi noonu la poñee lépp lu fi institution loolu la yàlla dogal mais sa diggante moom bëgg naa nga leeral ko Sénégalais yi parce que bëri na ba tey ñi nga xam ne soppuñu la ak ñu bëgg a profité ci lii xeex la nee nañu euh, ci suuf dafa mel Macky Sall lay jàppale ci suuf parce que caisse d'avance bi nga tudd léegi moo tax euh, Khalifa Sall sa leader dugg prison hmm. yow temps yee passé journaux yëpp relaté nañu benn conseil municipal xaw ma seen réunion yooyu nga taxaw wax fa lu rëy nga ni caisse d'avance bi euh, Macky Sall bëggu woon nga laal ko su ma juumalee bëggu woon nga laal ko waaye terewul laal nga ko ci Covid bi pour séddale ay joxe ay def ay action sociale ay joxe ay ceeb ak yu ni mel loolu ba nga waxee euh, mu mu soulevé tolle ndax am na ñu ne pourquoi euh, d'abord yow en tant que maire maire de nga xam ne quand même am nga une certaine autonomie quoi ban besoin nga am pour tàggu Macky Sall c'est vrai c'est le pouvoir central mais pourquoi yow nga war ko tàggu euh, pour laal caisse d'avance boobu euh, ba pare n'empêche tàggu nga ko mën la bu ko laal nga dem laal ko quand foofu tamit bëgg naa nga leeral ko euh, sa diggante Macky Sall ak affaire caisse d'avance boobu mën la bu laal nga laal ko pourquoi nga tàggu ko est-ce que y a une forme de connivence entre Soham Wardini ak Macky njiitu réew mi. dama lay laaj lenn. Hmm. man du maire de Dakar la. waaw maire de la capitale. dëgg dans les autres pays. Hmm. le maire président daf koy recevoir chaque mois. waaw dëgg la loolu tam dëgg la. Hmm. man lu tax nit ñi ne du ma wax ak moom pourquoi. pourquoi je fais partie de l'État. man su ma amee sama soxla. ñu téye yépp parce que kenn ñemewul jege vers ville de Dakar. kenn ñemewu koo jege boo ne ville de Dakar rek ñu commencé lox mm. man li ñuy wax xaritu Macky Sall la day dem Macky Sall ñeenti yoon la ma mës a recevoir te bëccëg la ma recevoir te bi may laata recevoir première fois bi dama bind ba sonn à partir de la ville de Dakar le courrier fa la jógee dem mm. mu yéex maa recevoir je crois que bi mu fi ñëwee fi benn émission Grand Quartier mm. peut-être que dañ ko ko wax walla mu dégg ko may naan man de maa ngi xaar sama audience ba léegi ci la ma njëkk recevoir pour la après grand quartier après grand quartier bi ah. ci la ma recevoir. ma dem waxtaan ak moom wan ko ne man liggéey laa bëgg man bëgguma ko may xaalis mais na joxe ay instructions rek pour les membres du gouvernement les différents ministère vraiment ñu nanguma maa accompagner te wax dëgg yàlla daf koo def nag. Mm-hmm. foofu laa commencé am tuuti ouverture commencé war a mën a liggéey li ma jot a liggéey. Mm-hmm. mais tu ne trouves pas normal que man war naa wax ak président de la lu tax du ma wax ak moom Khalifa Sall da doon wax ak Ablaye Wade. Khalifa Sall da doon wax ak Ablaye Wade et régulièrement. bu baax ah man dem naa foofu rek ñu ne voilà AFP la bennoo la dem na daf ñuy nax dafa ŋarale bàyyi naa leen ak yàlla ñuy wax loolu yëpp man liggéey laa bëgg defuma leneen. Mm-hmm. vraiment nit ñi war nañu arrêté yu mel noonu parce que nag réew bu nit ñi dul toog di wax dara du baax. Mm. dara du baax il faut waxtaan il faut partage il faut ñu war a mën a discuter ci li ñu war a def nag mooy kilifa gi nag neex nag nakkare mooy kilifa gi. mais bu ma bëggee bloqué daf may mais Macky Sall fii ku mu woo nga dem ko. ah, ah voilà <laughs> mais am ñoo xam ne ñu yuuxu ni pour. woo leen voilà na bëgg mais yow yow yuuxu woo. te saa yu may dem audience nag danaa wax sama cabinet yëpp maa ngi dem. Mm. audience nëbbu ma ko du ma ko mm. nëbb. te saa yu ma fa bëggee dem bu ma ko mayee moom président danaa dem. ba pare wax nga sànq lu am solo mooy euh, Khalifa Sall. oui tout le que euh, avant muy dugg euh, foo mu duggoon nungu siin fee léppam nañ ko bloqué woon ndax nguur kenn du ko xeex mooy pouvoir central. Mhm. mooy te ku ne xam na tamit ne mairie Dakar ku fi mën a nekk ku fi mënta nekk aussi. Mhm. te obligé de frayer avec l' que représente Macky Sall. munoo te loolu maslaa la maslaa nag lu ñu olof doon sukk du tey yóbbaale say koom. c'est mm-hmm. cela ne veut pas dire que yaa ngi wax dafa mel ni comme tous les tous mm-hmm. que loolu dafa am yàqul laaj mooy caisse d'avance bi est-ce que maman yaa ngi utiliser caisse d'avance bu ou pas nu mu demee. Aïssatou caisse d'avance ñu ngi ko tuddee woon caisse d'avance mais c'est une rubrique dépenses diverses. ok mosuma koo génne ci budget bi. ba ñu tëjee xalifa aussi dama ko def ci budget bi ñu koy voté conseil yëpp di ko c'était dépense diverses mm-hmm. à l'époque caisse d'avance la woon parce que mënoon nañ ci def yooyu ñu ci daan def c'est-à-dire gàmmu yeeg comme le l'époque coloniale et tous les maires feu Mamadou Diop l'a dit au tribunal euh, l'autre maire l'a dit euh, c'était une caisse vraiment qu'on utilisait pour aider surtout les grands malades ñu ñu doon évacuer en France ak yooyu yëpp quand l'IG est venu ne kii ni ñu koy fonctionnement bi war nañ ko te loolu lañ wax de waxuñ ne nañ ko dindi sax dañu ne création beeg yooyu ak fonctionnement bi dañ ko seetaat mm. loolu lañ ci wax bon la politique étant ce qu'elle tout ce qui s'est passé c'est du passé oublions et revenons à de meilleurs sentiments c'est mmh. difficile nag c'est difficile parce que nag ñun ñoo demoon kaso mm-hmm. caisse d'avance ki ma interpellé au niveau du conseil municipal xam nga nit ñi moom bëgguñu jàmm. Hmm. toujours nañu xuloo nañu xëccoo nañu xeex nañu kii vous avez utilisé la caisse d'avance le président de la république pendant la Covid dafa génne benn décret boo xam ne nañ lañ def réaménagement du budget nañu seetaat budget bi nu ñu koy defaatee pour mun a faire face aux dépenses de la Covid. Hmm. c'est ce qu'on a fait cette utilisation dont on parle bëgg ko taxal nag boole ko ak ceeb. parce que ba su xalifa ba caisse d'avance ak ceeb la woon. mu ta mu ne ceeb lañ ci jënd. ki na pas kan moo jëndul ceeb fii état hmm. jëndul ceeb jox ko nit ñi. bu état waxuñu ñun nañ dimbale nit ñi. Mm-hmm. nañu dimbale hôpitaux yi. Mm-hmm. man loolu laa def man la ma def yëpp kayit yaa ngi foofu chaque année ARMP dana ñëw auditer marché yi man nañ auditer man j'ai la conscience tranquille man ñëwuma fi pour ut xaalis dama ñëw pour liggéey. liggéeyal ndakaar waaye yi nga xam ne ñoo ñu tànnoon équipe boobu. Mm-hmm. man bi xalifa demee conseil municipal moo dajewaat votel ma ñu defaat ma maire. man liggéey laa xam xaw ma leneen. Hmm. waaw maire de Dakar candidate à la candidate à sa succession. Hmm. yow boo ko <laughs> candidate à sa succession. Hmm. Euh, donc sa sa émission euh, jeex na mais dama bëgg maman nga jeexalee mu mu nekk sa mot de la fin nga jeexalee quand ci wax nga sànq sa bilan euh, wax nga li nga xam ne jot ko def. wax nga tamit junj nga tamit euh, tuuti ci li nga xam ne moom nga entamé war ko àggali. Mhm. mais dama bëgg nga wax ma tuuti moom laa bëgg nga jeexalee ko euh, lépp xaju fi man damaa bëgg nga wax ci tey jii buñ mhm. euh, xam naa ne bari loo xam ne pour Sénégalais yi gën waaye gën mhm. bëgg nga wax ma ñaari point yoo xam ne. moom nga bëgg ñaari yëf yoo xam ne tey jii buñ la euh, buñ la joxaatee bu la teg waar joxaate sax waatee seen kàddu ñaari point yooyu ñaari yëf yooyu moom ngay gën a euh, euh, tax ci nga gën a taxaw pour gën a pour Dakar waaye gën nekk dans le confort mooy sama programme bu njëkk bi rek mm-hmm. Dakar ville moom ni mu mel c'est pas normal te dama ciy oon ak état central pour ñu jàpp ci ministre de l'urbanisme ñëw na def na fa benn visite boo xam ne dañu d'accordoon pour vraiment recommencer désencombrement bi defaraat dëkk bi ba mu set parce que nag sama programme am na yu ma la ci wax parce que forum de l'eau dakaar la c'est Dakar 2022 mm. ñun récemment def nañu euh, gagné nañu pour organiser le forum mondial de l'économie sociale et solidaire en 2023 2022 forum de l'eau 2023 forum de l'économie sociale et solidaire c'est un forum mondial dëkk yu bari ñoo ñëw fii Dakar 2026 ñu am JO yi fàttaliku leen JO yi man maa demoon jëli drapeau bi. Hmm. donc loolu yëpp nar a nekk dans ndakaar il faut que ñu désencombrer dëkk bi ba mu leer naa ñi ba nga xam ne mobilité bi dootul am problème. Hmm. parce que xam nga ne embouteillage ñu ngi bëgg a rey kon nag ñun loolu ci loolu loolu mooy suñu premier axe boo xam ne Dakar dana noyyi. Hmm. beneen axe bi mooy femmes yi ak jeunes yi employabilité des jeunes. parce que nag ñàkk liggéey bi métti na torop foofu itam damay lancer waat appel xale yi. gis nga liggéey du toog ci bureau rek sol cravate toog ci bureau climatisé entrepreneur yi li ñuy am par jour wala par semaine moo ëpp téeméeri junne yoon salaire bi ñuy am ah suñ maam sëñ Fallou daan na wax ne gàtt wërsëg weesuwul nga xam bu weer dee exactement li ngay am kon xale yi dama leen di ñaaxaat encore en tout cas ñun de ñi ngi def lu ñuy mën ñi ngi xalaat ñi ngi def ay euh, incubateur ñi ngi former hmm. di accompagner pour xale yi vraiment ñoom ñëpp ku ci nekk nga war a mun a am xëy. Hmm. xëy bi nag man de xam naa ci dara parce que man amoon naa salaire. Hmm. waaye bi ma defee départ. ah dama dellu sama baaxu maam yi dellu ci commerce bi. te gannaaw yàlla nag loolu moo moo ma téye téye sama kër. kon xale yi nañu góorgóorlu ci hmm. loolu. boo bëggee réussir da nga réussir man li may bañ a dégg ñu naan liggéey am na liggéey am na. nañu am imagination créatrice boo xam ne war nañu mën a créer. yi nag du sport je mm. fàtte woon naa ko ñu ngi ñu ngi signé nañ benn convention e-sport mm. avec Aladji euh, Man mm. bon yooyu yëpp war nañ ci mën a def loo xam ne xale yi danañ ci am xëy sport bi beneen voie la pour vraiment développer réew mi culture beeg yooyu yëpp amuñu jot pour wax ci voilà <laughs> maa bàyyi nga tàggatoo ak euh, sénégalais yi lay déglu ak kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. di wax ne xëy na danañ amaat beneen occasion ay soto boo xam ne danañ gën a mën a wax ci programme bu ñu nar a proposé waa Dakar yi euh, di di ñaax sama doom yi mm. euh, di leen wax nañ góor góorlu population yi nag ville de Dakar seen ay serviteur lañ si je peux dire comme ça liggéeyal leen moo ñu indi ci mairie bi te toujours ñun bu ñëwee mairie Dakar vraiment suñu parti politique yi nag dañ koy teg foofu ci buntu hôtel de ville bi. Mm. liggéeyal Dakar waaye yi nga xam ne ñoo ñu fal. Mm. kon nag ñun ñëpp yàlla nañu yàlla jàppale. Mm. ku ci nekk li nga bëgg yaa ko xam. yàlla defal la ko ñu ànd liggéey. pour nag développer réew ñu xol yi day ànd. waaye bu xol yi àndul yow boo xëyee rek yaa ngi xuloo yaa ngi xëccoo loolu du avancé loo dëkk. ku ci nekk li sa wërsëg. yàlla dana la ko jox kenn mënu koo dindi lu nekkul sa wërsëg itam mënoo xeex ba jot ci dëgg kon nag alhamdulilah Aysatu kontaan naa jërëjëf maa fii vraiment émission bi ragaloon naa fi ñëw nag yàgg naa la wax ne man ñemew ma torop média yi ah loolu la ma nit ñëpp di reproché nee nañ je ne communique pas assez mm, mm, mm. mais ku xool bu baax ah, ñun daal euh, wax tuuti daf lu bari. dëgg la loolu lañ bëgg. dëgg la waaw ñu baalu ak. vraiment euh, am na solo ñu ñu ñu gërëm la bu baax euh, sant la ma koy waxee rek vraiment euh, ñun moom ñun jigéen ñëpp nag laa wax te damay dama ci profito ndax ñun ragaluñu ndey nëbbatuwuñu wax dëgg yàlla. Mhm. dafa naa ne man nëbbuma nëbbuma benn yoon waruma ko sax def mais. Mhm. je le fais je je l'assume Mm. wax dëgg yàlla lu ma si jot ci xeer tamit nangu naa ko mm. mais dama dama jàpp ne Sénégal dafa toll foo xam ne euh, ñaari dafa am ñaari euh, pilier yoo xam ne euh, ku ko sàggane sàggane lu rëy mm. muy ndaw ñi ak jigéen ñi te ku ne jigéen wax nga lépp te defe naa ni pour la première fois ñu am jigéen maire de Dakar mu def trois ans defe naa ni yàqul dara ñu bàyyi ko nag may ko un mandat entier mu àggali ndax euh, ni ñuy mayal ni ñuy may góor ñi euh, ñun bu bu ñu amul woon góor du am kon loolu mooy dëgg lii dëgg tamit mooy du ñu bàyyi na soo war na ni mii ñu jël ñu dénk ko trois ans mu téye la yëf yi ba pare yëf ya neex ñu ñu noonu léegi c'est bon nañ ko pousse ndax xam naa bañ la ko jox 2018 sax bu leen wóoroon ne di nga toog fi di nga def trois ans duñ la ko jox dañu foogoon ne 2018 Macky bu ñëwee dàq la waaye comme nag loolu amul nga toog nit bu ñu fàtte yàlla. Mm-hmm. bu ñu fàtte yàlla damaa bëgg nag jaar ci lii pour euh, ñi euh, sama bàjjan Fatou saw Sarr def caucus des femmes leaders bu mu def ba euh, porter sa candidature képp kuy jigéen moo xam nag parti bu mu mun a bokk képp kuy jigéen te lii tal soo am war di nii ndax dama yéen da ngeen ubbi yéen sunu yaay yi da ngeen ubbi voix. boulevard ngeen ubbi. Mm. pour ñu ma man ak ñeneen ak ñeneen ñu pëtaxlu si. Mm. li nga def nii defaloo ko sa bopp jigéen ñëpp nga defar. Mm. kon képp kuy jigéen ci mim réew. da nga jóg takku ba dëgër bañ a bàyyi benn forfaiture jàll jàppale Soxna Wade du jur c'est pas la personne c'est li ñuy représenté la danoo sonn na ci góor ñi dañuy nappak dañuy dañuy dañuy dañuy naxaak. dañuy jàppale ay objet ak ay poupée. na ñëpp ñu àndandoo ànd ak yow jàppale la nga jóg. bu doon Khalifa Sall pàddee nga taxaw si liste bopp ñëpp ànd ak yow jàppale la man nag maa ngi résolument ak yow waaw ah, ndaw ma ko làqtuuma nëbbatuuma baat ba sax xam naa moo tax mu dee ndax ba léegi commencé naa man maa ngi campagne moo tax baat ba dee waaw mais baat bu dee tamit ay affiche laay jël tapp ci saa war di nii waaw na ñëpp jigéen ñëpp nañ jóg jóg na ñëpp jóg takku ba dëgër ànd ak saa war di nii toog ci maire Dakar toog ne faax toog ñuy jaagar jaagari dugg nga génn loolooy dëgg ñu profité na si octobre rose bi nga xam ne mu ngi jeex maman gis nañu li nga def si octobre rose bi gis nañ ko mm, mm. dëgg yàlla yaa ngi ñaax jigéen ñi yaa ngi yaa ngi defar baax kon euh, octobre rose bi nañu ñëpp àndandoo rose di di xeex lépp luy xeex cancer rawatina du sein nañu àndandoo noonu ñu ne tamit takku ba dëgër laxa saayu nekk si ginnaaw sama wàddi ni dooleel ko bañ a fàtte ne ñun actuellement réew àddina bi yëpp jigéen ñee fa ëpp te jiital jigéen a gën a wóor jiital góor ndax ñun duñu mm. war duñu trahir am nañu fulla am nañu fayda mën nañu lu ñuy def na ñëpp a jóg nag ànd ak Soham Wardini <laughs> ànd moom ñu xeex man moom bu campagne bu jotee disponibilité laay demandé <laughs> may naa sama salaire disponibilité laay demandé ànd ak yow ñu àndandoo xeex xeex bi waaw mm-hmm. Khalifa Sall bu la bu la pàddee fii la ñuy fekk ñu ngi taxaw bu la paa ñu ngi taxaw waaw ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm euh, euh, ñoom mat leen ñëpp a ñëw mat leen mooy ñëw téye mado mooy téye maquillage <laughs> capp cappal campagne bu amul fenn mooy am ren ci kàttanu yàlla ñun ñëppay àndandoo ànd ak yow mat leen maa ngi koy nuyu sama sama rakk ji ci make up beeg coiffure beeg capp cappal bi yére yi fànni design Moussa Sène bind sama affaire si suuf di gërëm sama doom yi Abdoulaye Mamichou ci euh, make-up beeg yooyu xale yi ngeen baal ma baat bee dee campagne bi moo metti damaa commencé campagne <laughs> jërëjëf <laughs> merci mamelles. Il brille de mille couleurs, éclaire bien des voies. Une magie possible grâce au savoir. Grâce au savoir aussi, ce magnifique monument de la Renaissance. Oui, le savoir permet tout, éclaire la vie, la mort et ensemble, dans Académique, nous irons le chercher jusqu'en Chine. Avec plaisir et surtout, je vous invite à, à visiter l'école, euh, l'univers de, de, ces génies voilà, et la fierté de tout le Sénégal. Hello, my name is Mamjara. I'm 11 years old. I'm a student in Berkeley High School. Et l'avenir du Sénégal, c'est ces enfants-là qui l'ont entre, entre leurs mains. Lorsque l'un des jurés a dit « c'est une euh, dame », elle représente le Sénégal. C'est ces deux mots, en fait, c'est une phrase en fait, que je vais jamais oublier. Je m'appelle Seini, PNC à Air Sénégal, communément connu sous le nom de membre d'équipage, communément appelé aussi